ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا الحمد لله وحده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 suñu turandoo suñu soppee suñu sage macha allah al ustaaz al amir Abdoulahi Lam macha allah Abdoulahi Lam la ñu invité mu doon jàmbaar ci l'islam bokk ci cadre unitaire de l'islam doon ci membre bu ci am doole macha allah loolu sa xëy dañ ci ñëw bu ñu ko temps bi mayee waaye lan moo tax ñu invité ustaaz Abdoulahi Lam mooy dafa am lu ñu bëgg a waxtaanee. te li ñu bëgg a waxtaanee jàpp naa ne soxal nañ jullit yépp soxal na képp kuy nit sax nag mooy al wal masuliya waaw ñaari mbir la nag ndénkaane ak kóolute ak responsabilité bi nekk ci yow mi ñu war a dénk ak responsabilité bi nekk ci yow mi war a dénkaane loolu defe naa ne soxla nañ ko ngir ñu waxtaanee ko kon bala maa sori ci waxtaan bi dama koy bàyyi mu nuyoo asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Abdallah ñu ngi lay nuyu di la fay nuyoo mm-hmm. di nuyu waa 2 di ko tàmbale ci kilifa gi mm-hmm. ak njaboot gi yëpp mm-hmm. teg loxo bi sa nuyoo nga jottali leen ko teg nuyoo bi sa loxo nga jottali leen ko di nuyu kilifaay senegal gépp ak fu ñu mën a ne kilifa diine yi kilifa réew mi mhm. yëpp kenn ku ci nekk ak fa mu féete waaye di nuyu Sénégalais yëpp di leen ñaanal jàmm di ñaanal jàmm àdduna bi yëpp mhm. di fas yéene ànd ak uh, yéen tey ci émission yoon wi ci tomb bii nga xam ne bu jara waxtaanee la mhm. alhamdulilah macha allah kon mbokk mu ngoog suñ mbokk Aloustaaz Abdoulaye Lam ginnaaw bi mu nuyoo ba pare Aloustaaz dafa am ñaari laaj yu njëkk a nekk sama xel ma bëgg nga dikkal mu ci mooy bëgg naa nga defal ma taarif définiral ma lan mooy al amaana ak lan mooy al masuuliya alhamdulilah Cheikh al amaana baatu arab la mm-hmm. boo ci wolof mën naa am firi yu bari mm-hmm. mën nga koo firee ndénkaane tudd nga ko sànq mm-hmm. mën nga koo firee kóllëre mm-hmm. tudd nga ko sànq euh, mën nga koo firee tam euh, li ñu tuddee taklif luñ la togg nga war koo jëfe baat yooyu yëpp mën na koo firi lu tax baat bi dafa ñëw ci alquran yàlla fonk ko lool di ko tudd lu bari daanaka aj ci dundu nit wax ne li indi nit ci kaw suuf yàlla dafa am benn mission boo xam ne amaana la ko tuddee naar aradna al amaanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insan innahu kaana zaluman jahula mission borom bi subhanahu wa taala ci kaw suuf ci tënk bu gàtt mooy amaana mission bi nit war a dox si ci kaw suuf wala nit ñi mission bi leen indi ci kaw suuf moo tudd al amaana suñu ñëwee ne kenn ku ne la ci yàlla pàcc gam ca gam la ca jox mm-hmm. lam la ca daggal ne lii mooy séer séer ci amaana gi mm-hmm. nga war koo doxal mm-hmm. mën naa firi loolu mën naa firi comme ni mu ko waxee ndénkaane mooy leen la yàlla dénk rek nga war koo sàmm saytu ko toppatoo ko ba du yàqu ba ci cëppaandaw ga nga mën koo delloo amaana la waaw kon mën naa nekk ndénkaane mm. mën naa nekk itam kóllëre kóllëre moom itam walla kóolute moom itam mooy ki ngay dénk da nga koy wóolu moo tax ki ngay dénk amin lay tudd mm-hmm. li nga koy dénk tudd amaana mm-hmm. muy benn relation boo xam ne amaana bi am na kuñ ko war a teg ci loxoom mu war a nekk al amin waaw kooku nag ah, baatu al amin boobu dafay dafay ne ki ñuy jox amaana dafa am ay critères yu nekk ci moom hmm. mu doog a eh, nekk koo xam ne mën nañ koo jox mission boobu hmm. mën nañ koo wóolu mën nañ koo dénk mën nañ koo dénk moo tax ndénkaane dafa rëy li mu firi mooy moomoo ko liñ la dénk moomoo ko hmm. mission biñ la jox itam moomuloo ko dafa am ku ko moom jox la mission bi waxla nga def ko xàllal la aw yoon nga war faa jaar am ay objectif yu mu la bëgg nga atteindre ko jox la moyen yoo ko defee Mhm. jox la mooy loo ko defee du la seetaan du la seetaan boo amee surga ku ko jox tool yow mhm. ku ko jox néeg yow kuy fay courant bi muy lakk yow ndox mi yow kuy joxe añ ak reer ak ndékke yow kuy joxe sax matériel bi muy liggéey ci tool ya yow waaw yaay joxe jiw bi yaay joxe engrais bi yaay joxe lépp bu dee société itam da lay defaral bureau jox la oto jox la carburant joxla la secrétaire jox la téléphone ndox courant logement sax jox la siège bu neex nga toog bul yaakaar ne yaa moom amaana la loolu mooy amaana pale sax boo fa duggoon amaana la da nga fa fekk ndénkaane la mooy dem doo ko yóbbu da ko fay bàyyi mhm. imaam ci jàkkaam amaana la day ñëw fekk fi jàkk ji fekk fi sax sajaada bi muy lal pour julli fekk fi maamuum yi amaana la mhm. buñ ko doon folli jarul xëccoo mhm. yéen a ma ko joxoon jël leen ndénkaane am ma dénk la dencal ma 10 000 francs yi dama ci am soxla fekk une semaine ñoo ne la an sama 10 000 loo war a def. am. léegi dama laa teggil coono moo tax mu tudd taklif dama laa teggil coono. dama laa dama laa tegoon ab charge. muy 10 000 ndax bu roon da nga fi ne di lay. wala nga nga fay bu fekkee da ngay jalgati nga fay soo jalgatiwul nga lay ñu nangul la saw lay doo fay. moo tax al amin la yatman ci fiq kuñ jox ak kóol kóolute ah nga def li nga mën a def jaar fi nga war a jaar def say effort yëpp bu amee lu ci yàqu it doo doo doo garanti doo fay ndax amin nga critère yi daje woon na ci yow nga def nga li nga war a def ba fi nga yem loolu mooy amaana ñu ñëw ci masuliya muy responsabilité bat biit ñëw na ci alquran inna sama wal basara wal fuaada kullu ulaayika kaana anhu waqifuuhum innahum mas'uluun alquran tudd na baat bi ñoom ñaari baat yi dañoo duggante amaana buñ la joxee ba pare ba nga téye ñu la nag antal mas'ul léegi yaay responsable ci liñ la dénk ci liñ la dénk mm-hmm. yaay responsable ci la dénk yonent bi bi muy wax ak nit ñi da koo jël ci misaal mu yomb kullukum raain mooy masulun ku ci nekk ab sàmm ab responsable la te responsable bu ci ne dinañ ko audité masulun an raiyati dinañ ko laaj la mu doon sàmm wala mooy responsable ci def compte rendu ci li ko dénkoon gis nga dénkaane bi ñëwaat na muy amaana bi xool liñ la dénkoon baax na wala baaxul jub na wala jubul jaarale na jaarale ko yoon wala jaarale ko yoon ñëw kon ñaari baat yi mu ngi noonu amaana bu ne masoliya la <coughs> leer na leer na responsabilité la ku ñu dénk ku ne rek responsable nga keroog bañ la dénkee waaw mbokk yi <coughs> ñu ngi ànd ak suñu mbokk Oustaz Abdoulaye Lam yal na yàlla fayal ñu ko leeral yi mu indi it am na solo lool <coughs> ñu jéggal ma tuuti rek Oustaz Abdallah leeralal nga ñu bu baax lan mooy amaana leeralal nga ñu lan mooy masuuliya ma bëgg ñëw nag ci ñaari jëmm yoo xam ni xëy na bokk ju jamono waaye ku si nekk am na loo ci yoroon kenn ki dafa am lu mu laaj kenn ki am lu ñu koy dénk waaye lu ci nekkit ka dafa am lu mu ba tax ñu ko nañ ko jox ke dénkit ki ni nañ ko dénk dafa am lu mu ni gis na ko ci moom ba ni nañ ko dénk mooy la dama bëgg nga ñëwal ma ci amaana bi ñu bi yont yàlla yuusufa laajoon ak masuliyam ak amaana bi nga xamante ni dénk nañ ko yont yàlla muusa ak masuliyam kiini ijaal ni ala xada in al ard inni xafidun alim kenn yaa abati stajirhu inna xayra man istajarta al qawiyul amin foofu bëgg naa ñëw eh, ahsanta sëñ Abdullah jërëjëf eh, li nga xam ne mooy règle bi mm-hmm. ci diine l'islam mooy li ñu tuddee amaana kenn du ko laaj dañ lay xool ba gis ne critères dajee na ci yow ñu jox la ko kenn du ko laaj ci ay critères lañ koy joxe dañuy xool ba xam ni critères yi charte yi matal nga ko ñu ne diw lañ ci wóolu diw lañ ci wóolu moom lañuy ñuy teg ci loxoom kóllëre gi moom la ñuy jox mission bi moom lañuy ñuy yen yen bi nga xam ne buñ la ko yéenee ñëpp dañuy ñëw naan la yal na la yàlla yan yal na yàlla woyofal yéen bi nga naan nit ñi jàpp leen ci yéen a ma ko yéen bu leen ma seetaan ak moom noon la war a tëddee moo tax yonent bi sasam doon wax ne boo ko laajee ñu yàlla bàyyee la ko di seetaan buñ la ko joxee yàlla téeñal la lu jar a bàyyi xel ko laajee ah yàlla seetaan la ak moom yaa ko laaj attan nga ko sa affaire la ah bu fekkee ne nag nit ñi ñoo la tànn jox la ko ni yen la yen bi ne la yaay ilimaan bi yaay chef de quartier bi yaay monsieur le maire yaay président bi yow lañu ñu wóolu yow lañ investir ci sunu parti bi wala sunu sunu quartier bi yàlla ne la gannaaw nit ñi ñoo la wóolu teg ci sa kaw yen bi gis nga beneen baat feeñaat na bi ñuy wax ab yen amaana mooy yen dëgg yéen la yéen bi yàlla ne kon maa lay téeñal maa lay jàppale di nga réussir duma ma la seetaan boo ko laajee nag yàlla ne ah man sama yoon nekku ci yaa laaj de. <laughs> assumer sa responsabilité assumer sa responsabilité. loolu mooy la daloon yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa daay ñëw wane compétence wane man-man wane yërmaane ci njaboot gi taxawu leen ba pare summa tawalla ila zil dem tëdd ca kër ga. taseeg ndeysaan mu xiif mar sonn ma ne yàlla yoretuma dara de soxla naa euh, nga jàppale ma xéewal gi ah ñi nga xam ne ñoo bëgg ñoo soxla ku ñu yen yen gis ko xam ne li ñuy wut ab sàmm lañ doon wut kii mën na ko ñu ñëw wax ko seen papa mu ne woo leen ma bi mu ñëwee góor gi waxtaan moom xale yi tarsiix ko mooy li ma doon wax ak sànq mm-hmm. dañ la war a dañ la war a euh, nu ngeen koy tuddee ci tubab tarchih maanaam euh, nit ñi ñoo war a ñoo war a ñoo la war a poser comme seen candidat du yaay poser candidature dañ lay poser comme candidat xale yi joxe Moussa ne mooy sunu candidat ñun ñun ñun ñun waa Madiane kër góor gi góor gi sa góor gi nangam waa bu naa cheikhun kabir ah, waa kër Baye diw uh-huh. diwee sunu candidat lu tax dañ ko wax xawiyun amin uh-huh. xawiyun amin uh-huh. ñaari baat yooyu dañ koy firee uh, nit ki am na compétence maanaam liñ koy dénk ci liggéey bi mën na ko su dee diplôme la am na ko su dee expérience la am na ko waaye tam am na beneen qualité muy amin maanaam nekk nit koo xam ne booy boo koy xool ci wàllu éthique jikko ju rafet ju baax am na ko set na wecc taxul dara ñu jox ko kon Moussa dañu ko investiroon ca post de responsabilité boobu teg ko ci kawam bu dee yonent yàlla Yuusuf alayhi salaam moom leneen la mooy post bi amul kenn ku ko fi mën a yor ku dul moom te suñu ko su seetaanee mu yàqu léegi yàlla ni ko ah yaay responsable de génnal wane sa capacité kon génn wane ne man la exception la nit ñi ñoo lay joxoñ booleeg booleeg am na beneen poste sax bu ñu ko ndaroon a jox astaxlisu li nafsi naam mu ne man li ma ëppal li ëpp solo mooy lii lii mën naa ko yor parce que lii fi mu ne nii man rek maa ko mën a yor kon poste bi moom amoon na ko ba pare. am na poste ba pare ba fa nag la mu gën a. waaw mu ne mu ne mu buur bi lii nga may jox man naa nekk gaa. Mhm. mais bàyyil ma gérer la lii ndax am naa compétence bi mën naa ko am naa qualité yi tax nga tànn ma pour pour pour def ma ministre conseiller. Mhm. du président. waaw léegi <laughs> am na leneen fu leen fu ma la amal njëriñ. muy bàyyi ma ma yor économie et finance bu réew mi ma defal la redressement préparer la euh, benn plan boo xam ne lii nar a ñëw ci réew mi ci ay ay problème dinañ ko mën a prévenir balaa agsi alors hmm. euh, boo xoolee ci suutul baqara yàlla tuddal nu fa ay nit ci banu israil hmm. min baadi moussa isqaalu nabiyin lahum asna malikan nuqatil fi sabilillah yàlla moo tar yonent boobu noonu ci ndigal yàlla moo leen moo leen tarchal moo leen proposé candidat moo ko investir mhm. wax critères yi tax mu investir ko alors muy zaadahu bastatan fil ilmi wal jismi wal jismi am borom xam li ñuy wax ko mhm. mooy réew léeg-léeg nga koy yore day am expérience wàllu militaire ndax situation bi moo ko laaj léeg-léeg ku koy yor day am expérience ci wàllu économie parce que situation bi moo ko laaj léeg-léeg dafay nekk politicien boo xam ne bu am expérience ci wàllu politique affaire bi moo ko laaj léeg-léeg ab administrateur lay doon ndax situation bi moo ko laaj moo tax ab poste buñ ñu koy joxe dañuy xool ki koy jox li ñu koy jox ak situation bi ñu koy jox lan la laaj mën nga jox benn waaye ren poste bu déwénee poste boobu dootu valable pour moom ndax ah, situation bi changé na nga changé ko poste yóbbu ko feneen fu naan doon indi fii keneen. te mbir ma di dox. te mbir ma di dox parce lu tax dox rek lañ bëgg. Mm-hmm. dox rek lañ bëgg. Mm-hmm. gannaaw dox rek lañu bëgg. bastan fil ilmi wal jismi après gisatoo ko. Mm-hmm. koo gis moom dañ ko doon préparé transition yi ci lay nekkoon. ba mission am jeexee la daawuda feeñ ca biir mission ba. ba xatala daawuda jaaloota ataahu llahu almulka alxikma jeex na wa ataahu wal xikmat kon nekk léeg-léeg nga gis benn candidat buy dem sax nga naan mooma fekk dafa am benn mission waaw bu am na keneen ku mu koo xam ne moom mu war a fël faw kii def liggéeyam pour moom mu ñëw alors doog a feeñ ñu ne ah bon mu jeex kon euh, yaa ngi ma waxoon ak ak ak ak Yuusuf ma yokkal la ci dégg nga eh, Taalut Taalut ak Daawud ak Daawud mhm. ñoom itam ñu ñu ñu feeñ loolu leer na eh, eh, Sëñ Abdallah macha allah leeral bi mu ngi am solo lool mbokk yi bu ngeen di ànd ak ñu di ngeen xam ne am na fu ñu bëgg a jëm ak yéen ci waxtaan parce que réew mi toll na foo xam nag war nañu waxtaan péncoo wax aussi waxante dëgg parce que loolu moo ñuy dimbali réew mi kenn moomu ko lu ñëpp bokk nag yenn duñu ko def seenu moomeel rawatina doon benn minorité ni ñoom ñoom ñoom moom réew mi ñooy def ñooy dindi ñun ñëpp dina seetaan loolu jaaduwul si laa ñëwee. Hmm. xam nga ñii di yëngatu ci wàllu politique ci misaal poste yi ñu yor yëpp bari na si yoo xamante ni dañ leen ci tarché dañ leen a investir. Hmm. falu jot ñu nit ñi wóolu leen fal leen. Hmm. muy man. muy yow muy keneen di keneen. Uh-huh. est-ce que man su may jël sama carte Pape Samba di ko jël Daba di ko jël yow nga koy jël ñu war a voté te carte bii ñu yor kat liñ ciy def bu ko ñu ëpp ñu mel ni ñun ñëpp defee dina am koo xamante ni moom la ñu bëgg fal te dina falu. Uh-huh. ba ma jëlee sama carte bi bëgg ko dugal ci mbañ gàcce gi est-ce que waruma wax ak carte bi ba pare soo ko faa dugal su may wax ak moom sama waxi bopp laa ko war a wax. wala waxi sama borom lu mu wax ni moom laa ko war a soog ko dugal te mañ gàcce amin Abdallah euh, posé nga question bu am solo mm-hmm. maanaam da nga bëgg ñu waxtaan ci élection yii ñëw nii mm-hmm. muy local yi mm-hmm. ci nga bëgg a wàccee liñ doon wax waaw mën na ne waaw man de su doon proposé damay wax ne nañu defal sénégalais yëpp formation séminaire à travers 2STV yi ak yeneen chaînes yi fi nekk ak chaîne YouTube yeeg euh, yëpp ñu defal leen ci ay séminaire ci lan mooy élection minimum lu mu néew néew dina am xam naa xanaa xanaa ab 15 pour cent ci sénégalais yi bu ko suivre bañ xam liñ jëm lan la xam kan lañ war a tànn xam lu ñuy tànnee xam lu tax ñuy tànn loolu na gën a amul nit ñi dañuy gëmm rek di sànni seeni kart li nga bëgg yow nii mënoo ko am ci nit ñi ndax préparé wuñ leen mën nga wax ne banu Israël Euh, contesté nañ an naa yakun lahul mulku alayna wa nahnu ahaqu bil mulk walam yu'ta saata min al maal mhm. loolu ñoom loolu mooy seen maayir mooy seen critères yi ñu bëgg a tànnee mhm. ñu ni leen déedéet critères yi tegul ci loolu ci lii la tegu bastan fil ilmi wal jismi mbir mu yomb moo tax toujours léeg-léeg am na koo xam ne buy tànn ab meeram dafa am lu muy def ci boppam fekk du loola gannaaw moom dafa juum ci ni mu ni mu xalaatee faw mu juum ci carte bi ñuy dugal ci bi <laughs> xalaat baa baaxul xalaat baa baaxul alxukuma ala chey faroon an tasawurihi balaa ngaa mën a attee dara da nga koy mën a teewlu am conception bi ba pare ba xam ne mbir mi nii la nga doog a mën a attee ma wax ne wéyegul li ma wax noonu dafa wéyul mhm. waaw responsable li fi nekk jiite réew mi mhm. nañu def effort dabaatal luñ mën a dabaatal ci informer nit ñi lan mooy élection lan mooy élection communale lii ñu jëm kan la ñuy xaar ki ñuy xaar ci lan lañ koy xaar lu tax ñu ñu ñu ñu ñu bëgg tànn ab maire lu tax ñu bëgg am ay conseil moo xam la communal wala départemental wala lu mën a doon lan lañ koy doyee su ñëwee lu ñuy xaar ci moom lan mooy mission am bu ko defee nit ñi dañ mën a siggi xool a ah lii ñu wax nii kan moo ko mën am na loo xam ne moom yooyu na liste yi defar nañ ko pare dégg naa ñu naan dëkk sàngam ñoom sàngam seen dañu leen fa forkoloo maanaam dañoo ñëw min yu tegal deux minutes ñi min yu weesoo nañu doog a ñëw seen liste mën tudd ko kon liste yi wéy na ba pare hmm. dañoo waroon a tàmbalee ci critères yu sévère ci koy dugg ci liste yi critère xam naa ne am nay critère yu sévère nga xam ne ña fay nekk dinañ mat représentant nañ mat représentant ci seeni gox waaye gannaaw loolu wees na ba pare nañu dabaatal wax ak population bi suñu waxee ñoom rek gis nga élection yi dina lii dinañ ko def librement dina transparence dina jaar yoon résultat yi dina baax sinon résultat yu tànn bu médiocre la ñuy tànn bi moo baax nga gis kuñ jox responsabilité fekk attanu ko du moom wala mu ñëw ba pare du satisfaire nit ñi walla nit ñi li ñu li ñu koy tàccoo naan ko yow la fekk loolu taxuloon ñu fal ko loolu mooy sunu problème ma doog a ñëw ci li nga laaj alquran daf ñoo rëddal ku ñu jox responsabilité ak ku mën a doon bu mag bu ndaw lu ñuy xaar ci moom alladina in makkanaam fi l ardi aqamu salaa wa atawu zaka wa amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar walillahi aqibatul umur beneen aay ba wax wa'ada llahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastaxlifannahum fil ard kama staxlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum diinahum alladi irtadaa lahum wala yubaddilahum min ba'di xawfihim amnan ya'buduuna laa yushrikuuna bi shay'an gis nga ku ñuy fay da nga am ñaari mission ci mm-hmm. l'islam mission bi mooy préserver diine ji ba du yàqu mm-hmm. préserver jikko yi ba du yàqu préserver valeurs yi ba du yàqu yow mi ñuy fal yow mi ñuy mm-hmm. ñii ñu teg fii nii kan mooy ki nga xam ne su ñëwee dina sàmm diine ji dina sàmm jikko yi li ñu rek ci quartier bi ci moom dina fi jóge hmm? insécurité in sécurité mooy am nan bi. Mm-hmm. ndax insécurité dina fi am in insécurité bu fi jógee rek sécurité mooy ñëw sécurité nag sécurité dafa yaatu. Mm-hmm. sécurité alimentaire ci la bokk. agresseurs yi jógee fi. nit ñi ko tëdd mën a nelaw ndox mi ndox mi taa inondation yi mbënn mi joge fi tali yu baaxul yi jógee fi léegi mën nga ma xam ne maire yi du ñooy tabax tali goudron maire bi du compétence am waru ko fee def waaye bu ñu fàtte ne ki ñu tabb ci kaw président de la république mm-hmm. ay compétence am la dagg da xam na ne mënta ne fu ne fu nekk mënu faa ne mu dagg ci ay compétence am maanaam liggéey bi ñu ko sant mun na mu ne la Cheikh Abdallah yow laa bëgg commune sàngam ci Thiès gannaaw fa nga dëkk nga wutuma fa defal ma fa liggéey bi ndax man lañ ko sant man lañ koy laaj man la ko yàlla yi laaj d'abord balaa ma ko sénégalais yi laaj léegi wutuma foofa lu fa yàqu wax ma ne yàqu na ma defar wala ma jox la nga defar soo demee la nga mën defal loo mënul wax ma ma def <laughs> comprendre nga bu baax bu baax a baax léegi nag ki kartam ñëw ma waxaat su xamut day sànni rek benn mu sànni parce que diwa ma neex yaa ma neex yaa ma neex moom fu ne lay parce que yaa moo neex ndax da naa a bokk groupe bu ngeen far ci diine ji yaa ma neex parce que da ngeen a bokk waaso yaa ma neex parce que quartier bi ngeen bokk yaa ma neex parce que seen baay ñoo bokkoon dëkk. kóllëre gu yàgg kóllëre gu yàgg yaa ma neex parce que ñoo bokkoon jàngandoo yaa ma neex wala ñoo bokk parci politique wala ñoo bokk coalition ci koy sànnilee. waaye du ay compétence. du moo tax da ngay gëm rek sànni. mais su fekkee da ngaa taxaw xool moo tax Sénégalais yi nañu am fulla ju toll ni bu leen riir mi yóbbu nañu toog ñoom xool observé seet ma wax ne ma wax ne oustaz yow yaa war a continuer sa émission bi ba nit ñi xam ko ñuy sànni xam nga yow faroo kenn nekku ci commune yëpp kon sànni woo xeer kenn da ngaa neutre émission bi dafa neutre boobu mm-hmm. dafay wax rek li nga xam ne wala bal nañ ci communes yi Sénégal yëpp wala bal ci département yëpp wala bal ci mhm. région yëpp wala bal ci réew mi yëpp mhm. bu ko defee kenn ku ci nekk tànn ci lu mu jàpp ne moom lii moom jot ji yor na ko mhm. waaw candidat bi mu gis ne mm, lii mooy tax mu woteel ko bu demee woteel ko su demee gisul kenn mu ne leen gisuma kenn mhm. am na ci sànni da nga waaw am nga ci droit nga mën nga sànni carte bi wane ne yow ñi fi nekk wax dëgg yàlla mm, doyuñ la wóoloo leen mu jeex te def nga sa droit civique wala sa devoir def nga sa devoir voilà def nga sa devoir mm. mooy ñii nii nii koo ci wóolu nga ne kenn jeex na ñu comptabiliser la koo xam ne dafa neutre woteelul kenn mm. nee na ñi kenn doyu ko fi kenn mënu ku ci satisfaire critères yi muy tànnee gisu ko ci ñoom jeex na mu jeex. loolu dafa leer kon ñaari aay yooyu ñu jàngoon ak yeneen. kii indil nit ñi sécurité sàmmal leen seen diine sàmmal leen seen i aada sàmmal leen seeni i jikko sàmm valeur yi dindi fi mon gi toppatoo école yi dindi fi jëlee fi mbënn mi defar yoon yi wala mu collaboré ka ca kaw mu defar ko. kooku laay wate. kooku leer na mbokk yi kon daal euh, dégg nañu Oustaz Abdoulaye Lam nee na ndekete carte kon bal nga ko sànni am na yoo ca war a wax ba pare sa koo dugal xam ne nag sa responsabilité ngi ci ëllëg lu xewati ci sa gox sa carte boobu fal ak folle bokk kon nañ ci bàyyi xel bu baax sa Abdallah loolu day doon benn étape kon loolu wax nga ko voté am na ko. wala hmm? oustaz. yéen dafa wax ne. bu tànn jotee. nga tànn koo xam ne leer la lele poste bi mënu koo yor attanu ko amul compétence yi critère tasewut ci ñoom waaye ci diw la tase la tasee nga bàyyi diw wa tànn ko moom mii da ngaa war yàlla yàlla musal ci wor jeex na xam nga amaana xiyaana moo ne ci wet gi yàlla musal ci xiyaana jeex na da ngaa wor yàlla nañ ci yàlla musal kon nag dégg ko mbokk yi da ngaa wor képp koo xamante ni sab kart votel nga ko koo xam ni yaa ma neex a tax nga votel ko ko waaye du mën-mënam wor nga waaw wor nga te nag xiyaana jullit daf ko war a moytu ndax boo ko tàmmee sax da doon naa fiq koy tumi xaana yàlla nañ ci yàlla musal léegi oustaz léegi ginnaaw pal googu voté nañu ba pare ñu voté di xaari résultat résultat génn ñu ne ah oustaz Abdoulaye Lam day fal nañ ko bari nañu ko voteel vote ba ni mu demee daal jur na ni moom fal nañ ko wala fal nañ keneen feneen yow mi ñu fal est-ce que bis boobu say militant ñi àndoon ak yow dañoo war di tëgg ak a fecc ñoo naan la sab liggéeyu ndey la wala dañ laa war a tiital boobu bëgg naa nga dikkal ma ci beneen bet gis naa ko ñu faloon de mu jaaxle lool ñu koy wax Abu Bakr ni Siddiq ba ñu ko jox dénkee yenn bu diis boobu moom nan la gisee woon nañu njëkkee ci Aboubacar Siddiq bi may introduire bëggoon naa ci dugg mais bëgguma xaabaabal dëgg la daa xamoon li ko yenn mu toon moo taxoon bëggu ko laaju ko woon xalaatu ko sax da ko bett moo tax dañoo xam ne bay atu kanat falta lu bette la woon waaw bëggu ko waajalu ko woon neexu ko waaye nag gannaaw jullit ñoo ko tànn faaw mu nangoo moo tax si d'investiram ba leeroon nañ inni wulitu aleykum walastu bi ko yéen na ma fal dool ne dama leen gën fii nag ñun dañ naan sa liggéeyu ndeya bi maanaam sa yaay moo baax moo gën ndey ñi ci des loolu sax dangaa sax dangaa saaga ñi ci des doo wallaahi ko de hmm? ñu ci des seen yaay liggéeyul ñoom hmm? kon yow sa yaay moo liggéey moo tax daal affaire bi ñun ak pal lañ ko def pal maanaam xaw ma bien ñun du ak pal la maanaam ak xéewal la gu dikkal sa affaire moo baax sa affaire moo moo moo baax yow sa affaire baax na ku la jege ku ne affaire am baax na loolu moo tax yaa ma neex bëri ci ndax ku ci ne da ngaa bëgg affaire bi sa affaire baax ci yow nga doxee baax leen ba faw te te xamuñu ne yooyu noonu noonu noonu ñu tuddee yu baax yëpp après dinañ ko réglé waat même fii buñ ko audité wul mu jàll sax am na beneen audit wuy ñëw waaw moom loolu la waxoon duwul ne sama yaay moo sëy seen yaay sëyuñ moo tax ngeen jox ma ko hmm. ganuma leen kon ab ànd àndas ànd ab ay gor la. Ah, ay nawlante nawlante la nawlante waaw moo taxoon mu wax lu leer su ma jubalee jàppale leen ma waaw su ma dëngalee ngeen jubbanti ma bu leen ma seetaan bu ngeen ko defee du baax ci man. fii nag gars yi le naan bien. Mhm. yow a yaa fi ne. Mhm. yaay buur di bum yaay buur bum bi yaa mën gaañi mhm. bu ko toppatoo bu faale bu ko sax déglu ah nga jaar ci mbooy gi rek boo defee la xadis bi doon wax moo lay dal nit ñi wóolu la nga nga wor leen ah Chine it bi xam nee na ku ñu jox responsabilité nga wor xeetu aljanna du la xeeñ hmm? waaw xet gi rek du la ah. Ah. te xasratun wa nadaama lay doon bés penc ak perte lay doon moo tax responsabilité oustaz ku xamul rek moo koy laaj ñun nag dañoo yaakaar ne affaire politique fii la yem ci àdduna yemu fi de ndax yow yemoo fi kon dafay dafay continuer kon lu jëm ci wàllu Aboubacar nii la tëddeewoon nii la yëgoon responsabilité loo commencé woon ñun fii bu ñu la falee ña nga àndaloon ñëpp dañu ñëw sa buntu kër mu ngoog mu ngoog di la jey parce que parce que li li ñu waxoon san moo amul comprendre ñu ils n'ont rien compris mm-hmm. suñu comprendre woon du ñëw di tëgg ko woy ko fecci waaye dañ leen ah am nga bi yenn nag xam nga fii Sénégal bu njëkk sunu falee buur nuñ koy def mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. dañ koy defal lël dañ koy dàmb day dugg lël du génn de nombre de fan yi jàpp ne da ko war a lëlu lan moo tax muy lëlu ci formation la nekk. ndax li mu war a yor. ndax li war a yor mag ñi ñëwalu ko wax ak moom dànkaafu ko waaw donte seen mbiru ceddo ma nga woon ci biir rek yenn yooyu seen mbiru bopp la waaye loolu yëpp ñoom noonu lañ gisee woon waaye li ci ëpp solo mooy critères yi war a nekk ci moom formation yi war a nekk ci moom li mu war a xam ci réew mi te xamagu ko woon. li mu war a xam ci gox bi famille yi ni mu leen war a xamee suuf si nu mu tëddee say maam ba léegi nit ñi du mbir mi doon doxee ndomb tànk yi ñen ñoo ko fi daan yor toujours ñoo ñëpp mu leer ci moom ñu war a recevoir mu recevoir leen pare nag doog nag génn nag doog nag toog nag ci pénc mi nag commencé doxal fekk di waajal nañ ko ca biir fekk waajal nañ ko ca biir dugg na lël ba pare hmm. noonu lañ daan def hmm. waaw macha loolu moo war a ne kon hmm. affaire bi du tëgg du woy du fecc du sant du sunu affaire baax na hmm. du sunu sunu sunu ñàkk xaalis jeex na day det du loolu euh, oustaz ma nettali la bismillah <laughs> ci liggéey bi ñuy liggéey ci liggéeyal yàlla ci suñu association yi association bi ma jiitee bi ñu ma nommé en tant que amir jamati ba rahman ci tànk tànk bi la am ku jël sama doom bu góor ne ko booy seen affaire baax na. subhanallah lu xew mu ne ko ah arab dinañ leen financé ba léegi day jotaguma dara <laughs> ba léegi daal sama dépense. sama salaire bu may kurkuri di liggéey ci laay dund. Mm-hmm. est que loolu mooy loolu parce que responsable loolu mooy loolu mooy mentalité sénégalais. Mm-hmm. loolu nag nañu ko bàyyi xel. Mm-hmm. waaw minimum le minimum mooy ñi la wër. mënoon nañoo sant borom bi subhanahu wa taala ndax ñoom ñu amoon ci confiance ci yow jàpp ne mën nga affaire bi mat nga ko ñu investir la ak gunge la def seeni effort ba yàlla def nga génn ñu sant yàlla ci li seen candidat génn fas yéene gunge ko ñaan yàlla mu bañ a tas seen mu bañ a tas seen waroon doon macha allah oustaz macha na solo kon indilaat nañu ku ñu joxoon responsabilité mu def discours bu àdduna dul fàtteeti muy abou bakr ni siddiq wullitu aleykum waaye walastu bi xayrikum c'est important wuutal wuutal wuutal nañ ma ci si yéen ma yor responsabilité waaye du ngëneel gu dox sama diggante ak yéen kon moom xam na li li mu yenn woon ma ñëwaat tuuti dafa am nag fu ma bëgg jëm kon léegi discours ba jàll na ma am ñeneen ñoo xamante ni ñoom dañoo bi ñu bi ñu bi ñu leen falee ba pare ba discours ya jàll xam na ni liggéey ci tegu ñetti laaj nag laa lay laa lay joxandoo foofu yàlla boo ci fàtte benn macha allah nga fàttali macha allah benn bi mooy yow mi ñu fal ma ma manoo ko yow dong mam Cheikh El Hadj waxoon na ko kilifa gu baax wala kilifa gu doon bu ko bëggoon laajoon xalaatam ci politique mun ko bu ko man yow dong bu ko sañ yow dong bu ko def yow dong hmm. kon yow ñi nga war a àndal pour jëf-jëf mission bii ñu la jox nga xam ni équipe nga war a def boo demee sax ci ministère yi cabinet ministériel nga fay dégg soo demee ci pale pale dangay gis présidence la ñuy wax du président rek am na ay conseil ci lu mu mën a doon ñu ko war a ak ñun léegi yow mi ñu fal ci mairie bi jox la gox wala conseil départemental bi mu mën a doon nga war a am ñooy àndal muy équipe boo xamante ni dafa doon une équipe qui gagne est-ce que ña nga fay tànn mooy ñi nga xamante ne rek ñoo doon xeex di dóorante pour nga yegg si foofu wala dafa war a am ñoom nu ñu mel pour nga jël leen muy benn bi benn bi nga ñëwoon ma ci ñaari Omar yi de bokku nañ tur waaye bokkuñu sant bokkuñu it jamono bi ñu yore mais kenn ku ne mark nga sa jamono ci liggéey mooy Omar ibn al-Khattab ak Omar ibn Abdul ba ñu nekk ci liggéey ba nu ñu ba tax Omar am discours bi ñu ko defaloon ni ko xakamta fa adalta fa aminta fa nimta yaa Omar kon ba ma njëkkee laaj laaj bi ma njëkkee rek mooy ki ñu fal ñan la war a àndal. oustaz esprit bi ñu taxawalee gox goxaan yi baax na esprit bi baax na mhm. ndax ay conseil lañuy ñuy tànn problème bi rek mooy lima ma waxoon nit ñi ñoo waroon a alors investir conseil yi comme ni ñuy def maire bi ah, dañoo waroon taxaw ci pénc ma naan diw ñu naan bindal diw ñu ne bindal diw ñu ne bindal ba liste bi mat ñu wooleen leen ne leen yéen la ñu tànn ba pare may leen possibilité buñ doxaloon ñu ni deel jëlee leen fi penc mi jëlee leen fi noonu la waroon tëddee nga xam ne mag ñi ñooy daje xam nga lislaam dafa am lu ñu tuddee ahlul xilli xam ne mooy ponkali ñooy daje faruñ fenn ànduñu kenn réew mi la ñu ñoom ñooy proposé président daal la république bàyyi xeetu ñuy wax ci seen xalaat forme bu ñu ko defee baax na même bu dee élection amul problème fii itam su fekkoon ne tànn bi ci ci base bi lay jógee ñu proposer seen liste conseiller jëm leen a convaincre am liste d'attente bu kii désister wax ngantam ñu nangul ko dugal kële ba mu mat konoon affaire bi dina yomb liggéeyu équipe lay doon mais fii d'abord dem ci élection yi jongante la parti bu ne da ngaa bëgg wax ne nii laa toll ci gox bi mm-hmm. nii la toll jooju nag moom ngay duggee mairie moom ngay continuer di gouverner ba pare keneen ka da nga bëgg mu tuuti réunion bu ñu ko mën a làq sax ñu làq ko bu ko mën a nëbb ñu nëbb ko responsabilité bu ñu ko mën a xañ xañ ko ko même bu ñu xamee ni am na compétence jël gaa ñoo xam ne dañ naan na woy woy monsieur le yow a nga naan nag yow la nga bëgg rek léegi yow a rek ngay bëgg mu jeex kon ku bëgg ñu naan ko yow la bokk la ku bëgg liggéey te pourtant boo bëggoon a liggéey ut ñu am compétence jox leen poste de responsabilité ñu ànd ak yow kon kon lañ lay wax sax yow ah. kon ñëpp ñoo naan la yow a ah. yow mii leen doon wut yéex nañoo jot ci yow. ndax yaatal ndax yaatal nga waxuma sax yaatal nga mais bi nga yaat yaatal gi dafa ànd ak nga tànn ñu ko mat ci ñi nga xam ne ñoo fi ne. wala boo comme ni koy waxee ci wolof lu ci ne la fay ñuul moo fay ab ñag mhm. ña fi ne nga seet ñi ci tane tane nga jël leen donte maa ngi contesté toujours euh, ni risques yi tëddee moom laa ko ne di contesté ba léegi mais bon amul problème <clears throat> léegi euh, équipe travail d'équipe la war a doon liggéeyu équipe la waroon a doon loolu mooy esprit bi euh, mu des nag nu ñuy def ba loolu am travail équipe la waroon doon bu ko defee Euh, ngeen ànd yéen ñëpp liggéey fàtte sax fàtte sax oustaz ku gañe ku gañewut nañ fàtte parti yi ak coalition yi waaw ak ak candidat indépendant yi bu ñu xasee def élection bu pare nañu fàtte lool yëpp lool problème élection la jeex na gaa yi leen ñu ànd liggéey ñun ñi fi fal daal nañu ànd liggéey booloo waaw su mandat bi jeexee ku nekk génnaat wuutaat ku gañe ñëpp jàppaat ci parce que gox bi moom moo ñu yitteel suñ defoon noonu rek problème du am kon dinañ am équipe bu baax boo xam ne su paree su ñuy def résultat yi kenn du fëgg sa dañ ne mana dañ naan équipe bi yëpp ci njiital ci njiital diw ki jiite gis nga ki jiite faw ñu tudd ko équipe municipale bi ci njiital diw résultat yii lañ def ku ne nag sa touche ngi ci mu jeex ñu avancé waaw Seydina Omar radiallahu anhu comme ni nga ko waxee euh, da daan gouverner nu am solo muy ñi mu tànnal boppam wala ñi ñu ko proposé mu tànn leen mu jox leen ay poste responsabilité ñoom la gënoon a sévère ci ñoom mm-hmm. fu mu waaw fu mu toll mu ngi leen di contrôler gis nga sunu sunu euh, institution yi ñu taxawal mm-hmm. ngir muy artu responsable yi di xool ñaat lañ am balaa ñu leen jox responsabilité mhm. su dee ba ci kanam mu xool lu ñu am jaar na yoon wala jaarul yoon Omar ku njëkk taxawal tuddee ko min ayna laka hada cey foo jëlee lii xam nga Abu Hurayra radiyallahu anhu mhm. xam nga yonent bi sax bi dund ci ahlu suufa la bokkoon mhm. ñàkk lool Eh, dama naan génnee ci kër jàkka ji dugg ci kër yonent bi daanu ngir xiif mhm. am ku ñëw teg tànkam fii di xool ndax séddi ji mu ngi daw mu ngi tëb wala tëbul ndax deenaa wala deew ma te mu ne dara jotu ma dul xiif kepp mhm. ci jamono yu Omar am nekk na gouverneur am alal ba Omar woo ko audité ko mhm. mu feeñ ne ci alal ji euh, day jaay ay fas ma ne ko ah buy commerce. balaa kenn jënd fas jënd sa fas yi jeex. yow lee tax nga am nga am fas poste responsabilité bi ñu la dénk yow ci nga profito pour am xaalis bu fekkee amoon na un bu jël cinq cent million yi def ci trésor public bi. bàyyi ko cinq cent millions yi. nee na ma julli suba xool ne daal dëgg-dëgg lii maa ko ñaq war daf maa tooñ rek xam nga lu mu ci tegam. summa staghfartu li amiril mu'minin yàlla yal na nga jéggal Omar mu jeex ñu avancé. donc kon ni mu doon gouverner noonu moo ko mayoon nit ñi bëgg ko sopp ko moo ko mayoon foo ko neex dem. bu fekkee naaj wu tàng ci la ñuy gis Omar di daw topp benn mburt mbote bu rëcc ngir jàpp ko delloosi ko ci alal asaka ji ndax bu réeree moom lañ koy laaj. di wax ne fii ba Irak gëléem gu fi fakkastalu ci yoon wi man lañ koy laaj di rondu guddi ba fekk ndaw su matu mu toggal ko mu lekk indi soxnaam mu rewle ko loolu yombul de mm-hmm. moo tax ñiy laaj gox ya gox goxaane ci ñoom lañ toll nañu préparé am nañ lu rëy lu leen di xaar mission bu mag boo xam ne dootuñ nelawati dootuñ noppalooti ba seen mandat yi jeex ku ci def benn mandat màgget to soxla beneen. waaw hmm? hmm? ku xam sa masuliya di dina feeñ sa yaram feeñ sa. alors bu dee Omar ibn Abdul Aziz seen naa war ak ni mu doon gouverner mën nañ ci wax lu yaatu. Hmm. ñu ñëw ci Omar ibn Aziz. di sëtam di sëtam. Omar ibn Abdul Aziz daa bokkoon ci point fort am mooy soxlawul dara ci alalu askan wi. bàyyil point bàyyil xel point soxlawul dara ci aralu askan wi ba mu am a ah, délégation bu mu recevoir wala ku mu recevoir ci pale bi pale bi mooy këram di ñu toog di waxtaan ba kooku li ko indi woon mu jóge woon fu sori ñëw mission bi ko indi woon pare bu ko ni di waxtaan ak moom ci leneen Omar dafa fay lampe bi taal bee waaye ji jaaxle nag waaw bii nga fay mu ne ko bii bu état bi liñ doon liggéey jeex ne bii sama làmpa suñu waxi bopp la suñu waxi bopp la léegi kooku du lakk du lakk carburant bu mu moomul du jël oto yi di ko pasar pasaree du jël xaax bi di ci ut yaama neex alors am na benn waaye bu ñëw jógee feneen di laajte kër amirul muminin këram ñu ne ko mu nga fële na le mu ñëw romb ko Omar jaxase ab ban di defaraat miir miiri néegam ci ginnaaw soppeeku maçon yor turelem tooyal suuf di tabax di rakiste mu dem dëppaat ne mën dal seet naa fi gisuma ko benn benn tayyaan waaxid yaamalu fi tiin benn tabaxkatu ban laa romb ñu ne ko mooma saa waay demal mu ñëw ci moom gis nga Seydina Omar euh, Omar ibn Abdul Aziz radiallahu anhu rahimahullahu taala rahmatan wasia fi ñu ko fi ñu ko fi ñu ko introniser mu nekk amirul muminin mu génn jëm këram la wax raja bindal gouverneur sangam dëkk sangam fooli naa ko gouverneur sangam fooli naa ko gouverneur sangam fooli naa ko am ñu ne moom moo bëgg njistal mu dégg ko mu leen fii ak kër gi xaw ma dinaa fi faatum déet te yàlla dina ma laaj ñooñ noonu def ak ñoom parce que xam naa ne jubuñu loolu Hmm? waaw loolu rek mooy mooy li nga doon wax mas'uliyya yëg responsabilité mhm. moo ko waral mhm. kon daal kuñ ci teg fenn yëgal sa responsabilité soo ko deful yaa ngi ci danger mhm. léegi loolu am na solo trop kon wane nga ñaari jëmm yu tedd mooy Omar ibn al ak Omar ibn Abdul Aziz kenn ku si nekk ba nga yoree liggéey bi ñu la dénk ful ji nga ci amoon ak ni nga ko doon doxale ba seetoo ci lu neex nit ak lu naqari nit léegi nit ñi nga xamante ni fal nañu ñu jàpp ne nag waxtaan bi romb na maire maire yi rek de muy maire ya muy législative ya muy présidentielle muy jàkk yi bien ka ñu fal ca jàkk ja directeur d'école ba ka yor direction bu mu mën a yor fu mu mën a nekkit na xam ni lii ab pal la PDG bi conseil d'administrateur bi voilà yooyu yëpp na ngay ci yëg sa bopp léegi ma ñëw foofu ki ñu fal muy liggéey sérieusement moom toppatoowul ay mbir yoo xamante ni da koy def ngir neexal clientèle politique am waaye xam na lii moom responsabilité am la mu ciy def li ko war ñam koy defal est-ce que war nañu ëllëg mu laajaat leen ñu bañ koo jox ndax lu dul ni moom kat gerul kenn nag neexalul kenn nag moom daawul def li neex nit ñi doon tele mu ngi doon liggéey liggéey bu baax boo xamante ni njariñu askan wi la waaye nag moom ni mu waroon di laami soog nit ñi di def yenn yi defu ko est-ce que ñooñu war nañ koo xeex ndax loolu wala waaw eh, politique bi ni muy doxee Sénégal dafa laaj assainissement. Mhm. assainissement la laaj. nettoyer terrain bi te loolu ci biir bopp yi lañ koy nettoyer moo taxoon ma doon wax ne am na lu wéyegul te bu la neexee nga jël ko en charge sa mhm. sa émission bi yow. Mhm. mooy nit ñi lañu war a fexe conscientiser leen. ñu xam luy élection xam lu tax ñu ko organiser xam kan lañu war a sànnil carte xam kooku lu ñuy xaar ci moom. Mhm. du ne affaire yaa ma neex du affaire ndey ju liggéey. waaye dëkk bi lañu bëgg mu baax. xar kanamu dëkk bi ni mu mel moo leen neexul ñu bëgg mu changer rafet leer waaw insécurité bi fi am lañ bëgg mu jeex fi. Mhm. mbënn mi lañ bëgg mu jeex fi. yoon yu baax lañ bëgg mu jeex fi salte bi lañ bëgg mu jeex fi école yi lañ bëgg élèves yi jàng waaw kon dafa am nit ñi loo xam ne moom lañ bëgg ku ko def ku leen ko defal ñu ut ku ko mën ak équipe am ñu def ko bu fekkoon loolu am na comme ni ma ko waxee sànq ñu àgg ci cëppaandaw ga évaluer ensemble gis ne équipe bii kat wax dëgg yàlla comme ni ñu ko waxee ab équipe buy gagné kenn du ko changé ñii ñoom baax nañu nañ leen conduire nañ leen wax waxteelaat su fekkoon xam nañu noonu lay tëddee mais gannaaw xamuñu yaa ma neex la ba léegi yaa ma neex la. moom rek la mën doon. waaw donte Sénégal euh, réew mu naqaree jiitee la sunu benn mag li ma waxoon ni mu oustaz man daal bu doon sama sago doo déglu wax yi ndax Sénégal fii nii ku fi jiitu ñu ne tànk yi dafa dëng. xool ko ciim ak tànkam yu dëng yi mm-hmm. mu ne ma gis nga boo delloon ginnaaw keneen jiite ñu ne xoolal kii tànk yi daa dëng kon ku say tànk jub amu fi mm-hmm. waaw kon ah, euh, esprit tànk yu dëng yooyu moom lañuy dindi moo tax moo tax fii ñaare parti bu fi euh, yor dara lañ lay sikkalee boo fi jógee ka la sikkal bu ñëwee même sikki yi ñu la doon sikkalee moom lañ koy sikkal même même même esprit bi la waaw comme ni ñu ko waxee ñun fi Sénégal six et neuf rek moo tax léeg-léeg coowal politicien duñ ci sax bëgg a dugg dañ naan ñoom ñëpp a léegi nag il faut ñu politique autrement gere les choses publiques autrement ci beneen façon ma fum aaxar li li siyaasa waaw loolu nag euh, moo ah waaw ko defee chira u zimam du ci am ci élection yi maanaam du ñu achat de conscience du am doo fi ne di distribuer xaalis di ger nit ñi ah nit ñi gannaaw da nga leen a geroon pour ñu wateel la la nga leen joxoon avance la boo boo gañee da nga war a continuer <laughs> non da ngay récupérer waat lool sax ci seen li ñu amoon pour ñu defar dëkk bi da ngay récupérer loolu def sa poche ba pare nag doo ko seet neneen noo def <laughs> loo dolli waaw yal nañ ci yàlla musul amiin yal nañ ci yàlla musul yal nañ yàlla di xiit ci njub euh, macha allah léegi nag sama waxtu nag mu ngi waaye lii hmm. dafa naa ne li may bëgg laaj sax yow de bay nga ci sa waar ñu ngi xaarit ci ñeneen ñi mel ne tudd nga fi sax benn mbooloo wala tuddal naa la fi mbooloo mu man xam naa ne yaa ci muy cadre unitaire boobu ak yeneen ni mbooloo ngi fi nag ay association yoo xam dañuy wuyoo diine ñoom lii di waajal élection yi est-ce que amul lu leen war ci ñu joxale ko ak nit ñi euh. ma defaat nag loo xam ni sama précision la kii may invité mu Oustaz Abdoulaye Lam moom mooy amiru jamaati bar rahman macha allah yal na yàlla fay liggéey bu yàgg la liggéey bu yaatu la ñun xam nañ ci dara ndax jaar nañ fa bu baax a baax a baax jàngee nañu fa yàgg nañ seeni loxo kon yàlla yàlla fay ñu leen mais ma dikkaat rek ci loolu ñi nga xamante ni dañu yor ay mbooloo di ci askanale diine est-ce que amul lu leen war ci lii ñuy wàcc parce que bari na nag bu ñu ko ragalul ku falu ragal nitu diine yi nag ba tax li nga war a def sax doo ko def parce que xalaat nga ni kat. su ma leen defalul lii su ma melut ak ñoom nii su ma deful ak ñoom nii ëllëg su ma leen soxlaa du ñu ma du ñu ma jox seeni seeni wax kon lan moo war alhamdulilah ñu sama dernière question euh, association yi nga xam ne am naa ci accès di fa yëngatu yëpp xam naa ne élection yi yitteel na leen lu tax askan wi moo leen yitteel ñoom dañ jàpp ne ci askan wi lañ bokk fi lañ jógee fi la ñuy dell moom la ñuy liggéeyal hmm. kuy liggéeyal askan wi nag doo doo doo cof lii di élection yi faw nga bàyyi ko xel faw nga xool noo noo ci participer samedi passé samedi maa ngi waxtaan ak ay nit yoo xam ne euh, ñoom dañ jàpp ne war nañoo mën a euh, bokk ci élection yi ci ay gox yu fasante ko bi mu waxtaan ak ñoom ñaari baat yi nga ubbee la ubbeek ñoom mm-hmm. ne leen élection yi amaana la ak mas'uliya amaana la ak kóllëre ku ñu leen war a dénk ab responsabilité yi muy àndal mhm. loolu laa ubbee leeral ko dooga ni ak ñoom am na gox ba ma dëkk kenn ci ñi nga xam ne ñooy wut euh, commune bi ay ndawam ñëw nañu seet si ma ma waxtaan ak ñoom wax leen ne suñu taxawaay ñun ci commune bi lii la ku fi nekku ne ak koo mën a doon mhm. war nañu mën a jàppalante ak yow ñun ci diine la ñuy yëngatu waaye ñun ak politiciens yi cible bi benn la muy naka la ñuy def ba satisfaire population bi kon war nañoo mën a jàppalante ci luy jëriñ askan wi loolu nag ak ku mën a gañe ñoo ci yem ci ñun alors loolu bokkul ak sunu kartaw bopp yi nga xam ne ñun ci sunu natt bopp gis nañ ne diw moo ko war a moom loolu beneen affaire la waaye bu demee ba toog am moom ki fi ne luñ mën a jàppalante moom ci luy jëriñ askan wi jëriñ waaye ci préparation yi nii lu mel ni cadre inter par exemple wala jamaatul man kenn ku ne gis nga ne da nga am devoiru minimum conscientiser nit ñi conscientiser nit ñi wax ak ñoom orienter leen wax ak candidat yi wax ak parti yi ak coalition de parti yi ak ñëpp ñu jóg ci seen tur bopp pour conquérir euh, ak commune mm-hmm. ci nañu fexe ba bu deret tuuru yonent bi sam nee na nit ki ab jullit fii fusxatin min diinihi mu ngi ci jàmm ci diineem feeg maalam yusuf daman xaraaman feeg tuurul deret yoo xam ne dafa sacré kenn waru koo tuur loolu dañ ko war a fàttali nit ñi eh, coow li commencé na jàppal bàyyil moom la du moom ak violence bi ak violence bi yonent bi sam nee na eh, nit ki lu muy wut wut ko ci ak dalakuk teey yàlla da ko ciy defal tawfiix boo xam ne du ko ko defal ci bu doon ku ko bu ko bëgg jaar violence kon ak violence bokkul ci diine ji am Sénégal dañuy wax quatre-vingt-quinze pour cent musulmans mm-hmm. pourquoi quatre-vingt-quinze boobu bëgg indi violence c'est normal xamuñ seen diine moo tax faw ñu wax leen ci turu diine yi ñu wax ne moom lañ tànn bu dee ci beneen diine la bokkit diine jooju bëggul violence kon faw ñu wax ak ñoom ci violence bi nit ñeen nañu ànd ak dal gis nga ki war a gagné commune bu ne ci senegal yàlla pare na ci bu yàgg rufiatil aqlaam wa jafati suhuf gis nga ñàkk yaqin googu moo indi problème bi waaw la yonent bi waxoon rek na nga xam ne bu xeet yëpp dajee woon ngir jëriñ la ci dara mu mënuñ laa jëriñ lu dul li yàlla dogal ci yow suñu dajoon pour lor la mënuñ laa wàññi lu dul li yàlla dogal ni moo lay dal rufiatil aqlaam wa jafati suhuf yàlla mbir mi bid na ko bu yàgg yëkkati na gi wow na kayit gi wow na encre bu wow na jeex na léegi ñàkk yàqin googu maa asaabaka lam yakun li yuxti aka wa ma axtaa lam yakun li yusibaka poste bi nga gañe mënu woon fexe ba doo ko gañe mhm. ki perte mun loon fexe ba du perte kon li la dal mënu woon fexe ba du la dal li la mooy mënu woon fexe ba mu dal la encore dëgg kon dal googu daal ñëpp ñuy wax ci turu diine moo xam ci turu cadre inter l'islam te am nañu programme boobu moo xam jamaatu ba rahmaan la wala association yi fi nekk wala kër sëriñ si mhm. xam nga sëriñ si Euh, nitu diine yi bu dara xewee dañuy daw dem ci moom politicien yi mhm. bu dara xewee dañuy dem ne fay leen mhm. su leen rôle sapeur pompier mhm. mais ñu jouer rôle alors prévention préventeur nañu préven def prévention xoddeeku bala ngaa lakkale moo tax association yëpp am nañ am euh, devoir am nañu programme xoddeeku balaa ñoo ñu yaakaar naa maa la doon yónnee xutba goo xam ne maa ngi ko defoon ci élection présidentielle yi lé fii ma ko defee fii élection yi ñëwee am na diir ci cadre xoddeeku boobu la woon waaw imam macha allah Oustaz Abdallah waxtu yi jeex na takk kontaan boo doon tàggoo ci benn minute benn minute daal mooy ñaan sénégalais yi nañu dal dal nag fii lay ne ci xol nañu ànd ak yàlla nañu bañ a def benn violence kenn ko ne réew mi ñu nekk li ko constitution bi jox loi bi bi jox ko ko code code électoral bi jox ko ko nañu fexe mu jot ci librement sénégalais yi na ngeen am la ju tol ni xool leen nit ñi xool seeni programme xool seeni comportement xool seen jikko ngeen xam kan mooy leen di yoral seen wa astuut wasalaamaaleykum macha allah jazakumullah xeyran wa jazita xeyran yaa imamana wa habibana wa ustadana mbokk ko kon ñu ngi fi dalaloon Oustaz Abdoulaye Lam amir jamaat Ibadur Rahman waaye doon jàmbaari lislaam te defe naa ni yéen ñëpp kontaan ngeen ci waxtaan mu ñu defal fàttali nañu <clears throat> yee nañu nañu fàttaliku inna fi dalika la ibra di waxaat sama bopp di wax ñëpp nii yéen ñi ñuy laaj bu leen xeex ci bëgg ñu jox leen gas njàm bi kat boo weesoo ren nu ko wolof di waxe weesu nga reen ba am na foo xam ne boo ca tollee rek romb nga kon bu dee da ngeen a bëgg ñu fal leen <clears throat> ngeen di xeex <clears throat> ci ni nañ leen fal loolu dañuy tiital kon dal leen ut wutin wu rafet bul xawaaija bi izzati nafs fa inna al umura tajri bil maqadir loolu la yonent bi wax lu ngi nit di ut na ko ut avec une très forte personnalité di xaañante di mbëkkante di saagante ngir ñu fal la ñun ñi lay fal sax dañuy tiit yàlla ñu yàlla may xel mu rafet ba bu ku ñuy fal ñu xam ko waaye yàlla ñu yàlla dimbali ba ka ñuy fal mu doon ko war a fal macha allah seen émission Yoor Wa Ngoog ku mu raw mën nga ko dabwaat samdi di remercier nag bu baax suñu sas Abdallah ci turu kilifa kër gi yëpp alxaaji Ibrahima Ndiaye Adja directrice madame Ndiaye ak waa kër gi yëpp kontaan nañ du jotale indi waaye xam nga sa responsabilité moo la tax ñu yal na yàlla fayal ñu la aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا